يرنتب عليه الصلاة والسلام دعنا وخني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال ما يوم القيامة كان كنا بلغا دم سدكواي ديسنا لا تخاو تخاو الله لا نينتي ينتي مير يو خامني نينتي كاسيون تون خامني تون لاكو بوسي بو تي تونتو تونتو بو لير سمير وير لير سو تون تونتو نك لوس خام دي غام جافا جافا ton laaj bu njëkk bi mooy an umrihi fii ma naaw sa dund gi ci loo ko paase ci loo ko jeexale dañ la laaj dund gi ci loo ko jeexale su fekkee da nga nekkoon di ko jeexale ci soirée yi ak wayeeg misi gi ak làmb ji da am problème sëñ bi su fekkee nag da ko doon jeexale ci dayre yii moom di nga am xéwal yu rëy yoo xam ne dana la xaar foofu wa an shababihi fii ma ablaahu sa ndaw gi ci loo ko jeexale moom it ndaw gi diir bi nga nekkee ndaw yor kattan ci loo ko jeexale ci loo ko paase moom it ndaw gi su fekkee danga ko paase ci wër soxna yi <laughs> ak pecc mi ak làmb jeeg seetaanteel ak football yi su fekkee ci loolu nga jeexal sag ndaw kenn mën la am jafe-jafe foofu amut werante wa an maalihi fii min na wa fii ma anfaqahu sa alal alal ji nga yor yore dañ la laaj foo ko jële dërëm bu ne dañ la laaj foo ko jële dërëm bu ne danañ laaj foo ko jële moo tax gaa yi gaa yu baax yi nga xam ne dañoo ragal yàlla ñoom ak ñàkk moo leen moo leen moo leen gën a loon am ndax ñoom ginnaaw yowmal xiyaam bés bu dërëm bu ne dañ la laaj foo ko jële ak foo ko dugal ñaar yo dañ la ko laaj mooy ñettelu question bi benen bi moy wa an amalihi wa an ilmihi ma da amila fi li nga xamone ci lu bax lo ca jëf